mbokk yi ñu ngi leen di euh, nuyu am mbégte ak contentement bu baax à travers la chaîne leader TVM TV te ñu fii ci Alaaji Pathé Kër Massar la bokk boo ko waxee di seet si kenn la seen émission yóbbul discours ñu gën ko xam ci seen Abdoulaye seen Abdoulaye nag day boo xamante ni macha allah day yëngu ci wàllu mbay waaye ci wàllu a soxla da ngay fii ci Kër Massar ci euh, Alaaji Pathé woo ko ci numéro bi 77

ka kabula xat basa fadla fa dull warra wa nafa jay assalamu alaykum wa rahmatullah ñoy ngi nuyu kep ko xamante yaangi sétan ngi site bi di TMB TV fi ci rew mi ak ci bitim rew di len ñaanal jamm di len di len ñaanal suñu kaddu fekk len ci jamm diko ñaanal kep ko xamante yaangi ci rew si mi ak fële ci bitim rew jërëjëf. jërëjëf Serigne Abdou Lahad waaye dama la koy may doon da ko waroon a ñu doon laaj waaw Cheikh Abdou Lahad Cheikh Abdou Lahad Diop mi ngi cosaanoo Bawol di Bawol Bawol piir nag na ko waxee woon ñooy cosaanoo su dëkk mu naan Ndaari sa Mbaba Garas bu dee waajur yu góor yi tamit ñoo ko cosaanoo fun naan Mbodiène sa côté Dindé côté daar Khafor suñu waajuru góor foofa la nekkoon waajur suñu waajur góor waajurum foofa la nekkoon di ab sëriñ di jàngale alxuraan tuddoon Sidna Sina Omar Diop di taalibe suñu ndumbe bu mag bu suñu waajuru waajur jigéen rek ka meññ mi ngi tudd Seydina Aliyu Seydina Aliyu Faye di taalibe Maam Cheikh Anta nekk fële seen naar yi moom tamit di doon doonoon ab sëriñ bu mag. ñaar yooyu nag mooy dogaraan ba ñëw suñ jëmm ji suñu waajur bu jigéen fay la sant bim bim bim bi waajuram góor génne àdduna ñu jox ko ñu joxe ko xuru mbàkke kër sin mbay jaxate kon léppam foofu la di doomu daara piir ñu judd nag fekk leen ñu judd fekk leen si waar bi kon nii rek nan mën a mel. waaw loolu yàgg na trop ndax yaakaar naa suñuy waajur dañoo mas teg wax ñu lu mel nii ñëpp daw ma jël ko te boobu xaw ma lii lii jëluma ko ba noppi nag toog dama ko jël ba noppi dem ëssu ji ko jàng ko wante seeg yu metti dem ba noppi ba noppi jàng ko di teseeg ku ne di jàngi fu ne di si nuyuwaale kenn koo xam te ne taxaw nañu muy suñu xaarim fay borom jeglee sunub sëriñ la yàlla dogal bu ñëwee dakaar gi di fi jéem lu nu man am na lu ñu def si ñoom suñ ñun suñ jëmm yi am na lu fi def ku ñoo ko nuyu baax di ko siyaare waaye jàng ko ba fi ñu egsi fii ñu egsi fi tey ñaan yàlla mu gën a jëm kanam fii hmm. mooy sax. fii mooy hmm. bu sëriñ Xaadim Fay borom jagle yi kër gi kërug taalibe la moo tax nii rek nga ko war a mën a fekk képp ku fi ñëw boo génnee di nga ñeewaa kër gi lool yoruñu amuñu waaye ay taalibe Sëriñ Tuubaa waaw moo tax képp ku fi ñëw boo génnee di nga di nga lool ñu di ay taalibe di jàngalante xam-xam di jëriñante te jeyante wuñ waaw. yooyu waxtaan dañ ko bëggoon a euh, maanaam yokk ndax a xam kan mooy Cheikh Abdou Lahad war a waxtaanee wàllum euh, ñaar bi ci njëkk moom mooy bayre waaye ñuy wax bayre euh, lan nga ko mën a déggee te it lan nga ko mën a maanaam bayre dafa am ay façon yu ki nga xam ne dafa nekk si métier di liggéey bëgg fa avancement bayre da koy arrangé kii politique bayre da koy arrangé sëñ daara bi toog di si daara ji bayre koy arrangé ndax ñu fa man di indi ay seeni doom commerçant bi toog bayre da koy da koy arrangé yaakaar naa limal yu bëri ki ne si société di liggéey daa war a am bayre ndax seen njaati gi gën koo bëgg gën kaa teg fu baax yooyu yëpp nag day am képp koo xam te ñëw nga fi bayra ba nga bëgg dina dinañ si yow suñ jubee si hmm. eh, moom bayra moom mooy lu feeñ la képp ku ñu suñu bu dee da ngaa bëgg a feeñ dina am foo aw ak yow. baykat bi moom mën a gudd nag moom di di sàngu baykat moom lu la rek bayra lu ubbeeku la nit nag dina ñëw di wut wut bayra ni ma ko waxoon fii te bayra arrangé wu ko war naa fexe diine li ne si moom ba noppi muy xeeti gàllankoor yi yi ne si yaramam war na ko mën a dindi ba mu set doog di wuti bayra waaw. dee jaay la xam kenn du leen xam nga dugg kaso te am na bayra de bayra na ko faa dugal bayra de mën naa dugal nit kaso ñaare nit ngay dégg fii senegal ñu dugal leen kaso génn seen tur yëkkati lool la ñuy laal moo moo am doole lool te xamuñu ko. bu dee da ngaa ñëw si ma ni ma damaa bëgg bayra ni ma bayra bu saf laa bëgg ñuy waxtaan si kàddu yi ba juboo ma defal la bayra boo xamante ni xaajoo ba kay àttan ma defal la ko si loxoor la ngay nekk loolu ni ñu xamuñu ko am na nag bayra commerçant am na ko am na fi am na luy liggéey loo xamante ni bayra commerçant képp la am na luy liggéey loo xam te ne ku ne si liggéeyam bëgg avancé képp lan lan koy liggéeyal am na li ku ne li am na loo xam te ne ku ñu koy liggéeyal mooy képp koo xam ne donte am mi sax la mu nekk da saa bëgg yëkkati ko kaw képp lan koy liggéeyal waaw.

kenn mënu ko nëbb nit nag yàlla dogal man du ma ko xool si si jëmmam nii rek si abiyaas bi nii siisewu si moom dinaa doxal ak moom ba xam fi dinaa doxal ak moom ba xam fi mu féete bu nekkee ku la bëgg lor la nga xool noo def ak moom xool noo def ak moom bu ne nekkul da nga koy lor da ngay waxtaan ak moom si si kàddu yedd ko suwaat mu mu mu topp la nga dimbali ko wala mu bàyyi la dem xooli keneen kum kum bëgg faagaagal. ndax ñaan dafa daase kenn ku ne ngay gis kenn ku ne danga koy gis. ba eh, takk am na fi naan am na fi sangu am na fi wér dañu am na fi na fi dama la ko waxoon léegi am na ñoo xam te ne duñ takk duñ sangu mënoonoo jël ay gàllaaj nag am na ñoo xam te ne seen sàlle boo fa demoon tey jii. day fees dell ak ay biteel yu ñu jox ñu war koo sangoo te tey jii buñ ko sangoon amaana la ñuy sàkk ñu am ko waaye duñ ko def duñ ko mënu kooku nooy def moom da koy yor da wala nga génnee ko sarax la muy sàkk mu am ko nit ki mën naa ñu seen nga xool biddiwam wala nga xool awraxaanam topp ko liggéeyal ko ba ba lu mu bëgg mu am ko hmm.

suñuy waajur yu jur su suñu suñu yaay moo ko daan liggéey seen na xaalis mi ma la waxoon léegi jamono ji mu fi nekk mu jëflanteel ay nit àdduna yu bari yoo xam ne dañuy ñëw fa mu nekk ba léegi ndomb gi ñu jël ko si ndigal di ko liggéey te am na ñoo xam ne ñu liggéeyal nañ leen ko ñu gis ko ba tàyyi ba ay saa sa xéwal gi leen wax dañuy dem takk ko gis gis leneen ñëw sàkku sa sàkku si ko fi maanaam ñëw dolliwaat leneen ngir bég gin bég ndomb gi ndoom ak juróom-ñaar juróom-ñaar juróom ma la ko waxee mooy juróom-ñaari gaaw la juróom-ñaari téere lañ ko bootal dafay day ànd ak juróom-ñaari sagar xale xale bu ndaw buy nàmp xale buy jàng dox sa ak ak muuma ak sagaru re am meer meer meer bu ndaw meer bu munta doxee day ànd ak ñoom mo nopi nga rew ewlu ji ki nga ew moom mo ñew ci bir kër gi tok fi awal la ko day jàpp ba sel nekku nekkul kenn ko yor te jigen gi nga xamne dafa ne ci kër gi amu amu amu gut borom kër waru ko gis wa amu borom kër waru gis ndomba gi kon xam nga lu reey la. ma ah. sha eh, allah li ci wax nii waaye ndomb gi nii nii mooy seen yoon nga xam ne moom la juróom-ñaar juróom-ñaar comme ni ko maanaam moom lan moo ko tax ndomb gi day dox si bayre kaaraan gu wér da siy dox tul da siy dox lii boo ko takkoon tey jii saw yaram yëngu lalu weñ boo toog day lëmm day day day day lemu nga yor paaka boo ko yoree nii day lëmm xam nga kon fànn yi mi dox bëri na day jencee ñotti ni la ko mën a misaale hmm. juróom-ñaari fan lañ koy liggéey si ñetti fan yi lañ koy bind ñetti fan yi mu jiyee ñu wér dal la ko ñu wér dal la ko mu jeex ñu ñu jébbal la ko nga dem gis résultat yi ñu si wax léegi munoo bu soobee yàlla bari na lool li ma la wax léegi nee naa la liggéeyal nañ ko nit wax ko si la mu war a joxe mu mu dem takk ko ñëw dolli te si coobare boppam lañ koy teg kon ndomba gi moom moom moo mate hmm. xoolee ba xam ne yittewoo ko ñu jox ko duñ ko jox xale mukk duñ ko jox gone mukk ku ko yittewoo boo dikkee buñ xoo buñ la xoolee dina la ko war a mën a jox ndax àdduna moom kenn ku ne avancé nga bëgg te ndooma gi day dox si loolu moom juróomi gaaw yi ngay gaw juróomi gaaw yi ngay gaw foo mën di nekk bu dee da si kër gi moom mën ngaa mën ngaa gaw ñaari ñaari bu dee da génn nga gaw juróom ñe juróomi gaw yëpp ndax juróom-ñaari gaw la te gi am doole tax na boo mën naa ndax noo mi ngi day dolli day day dolli lii boo ko takkee juróom-ñaari ga yow mën naa am nu mu demee si yow ndax ndomb gi day dolli nit waaw góor yàlla waaw. ñoo ngi leen sant bu baax di sant seen kilifa gi leen yabal wax dëgg fi yàlla yitte jim def ba ñëw def lii neex nañu lool. te nit moom yéen ñaar boo leen jëflante di ay nawlante fa nekk te nawloo nañu ndax mosuñu koo mu ñuy jàndi wala mu ñuy wax benn wax bu ñu neexul kon sant nañ ko ci bu baax di sant tamit yéen ñi ngeen jéego yi ngeen def ba ñëw fii ndax ñëpp xam nañ ni taw bi Kër Massar ndox mi bari na fi lool maa ngi ñaanal ñi nga xamante ni ndox mi dafa nungu seen kër yàlla jox leen koppar juñ ko mën a saafara waa laaj baat gi yëpp koñ bi ma nekk nag maa ngi sant ñi fi nekk ñëpp ñëpp samay xarit ñëpp samay xarit lan yàlla def na yàgguñu fi waaye ñëpp ñu bëgg kon ñoo ngi ñaanal waa koñ bépp yàlla defal leen toofeex jërëjëf